joko 221 mo len di may keur sa keur nga bañ ben episode raw la abonel te nga bës cloche bi keur sa keur keur sa keur keur bay du keur jii lii am na ay li ci keur julli ci kër gi li mu daj ci kër gi jiili am na kër kër sa kër kërit sa kër bay du kër jiili am na li la kër gi di taamu kër gi moo la spécial. kooku lan la bu bu ma def lii waay eh lu xew da laa toppatoowul fii wala. waxal la lan قطو قطو قسنا ما دوما يا ابني تبيك كان بنت على طوق في ديلا خار وانا على بصونا جوتو مالا تالي بي لبيبي تبي تلفون سما تلفون فو سوخ جوتو بي مونو ما دي عمام تاعدي كو خوب كي وفو بانا في لاحظة جارو منك فينا ما عمو تيازا تالي بيك وزي ñu ñu bëri ñooñu noonu yëpp li ñuy saxat saxat yëpp man du ma seen morom et puis tabaski tabaski mais gérer tabaski mu gën a gën a sa waay lenn moo ma naxari si moom dafa mën a tànn xool xale bi mais kii namp yu baax la te dafa xam marque namp mais nag euh, ku doy waar ngi non kii mais xam nga li ma la doon wax keroog rek maa ngi la koy wax si téléphone bi gis nga suñu grand yi ñoo bari si dëkk bi ay jomb ñaaw la ñu dara xamul hmm? xam nga géttam bi maa ko yor hmm? te géttam bi xam naa ko xam naa ñeenti gétt yoo xam man la ko dégg mais entreprise mais xoolal dafay maye xar di maye lu ne ci àdduna mais gis nga ñi nga xam ñoom la bokkal ndey ak bàyyi deret fukki dërëm mënu ko si ñoom xamoon nag lu ma gën a naqari sa waay rakam bi nekk Touba ji xam naa ko bu baax dama koy seetaan Jokko TV. defalu ko dara dara dara kii Samba Alar dëgg bu ñu koy wax mooy kii. mais frère nag gis nga genre yi ñoo si dëkk bi de genre yi jëriñu nawloo de ñii ñoo bëri si dëkk bi bu leen gis ba naw leen bi bu baax ko ñu nekk si leen yëg si kaw xool lu ñu. yow sa kër moo ngay góorgóorlu de. waaw moo eh. oh. ngay góorgóorlu de. Eh. waaw noonu nii daal. jamono nii daal ya sa waay nii ah, ya la. waaw wax dëgg yàlla am saa nga de. yaay ndox mi dal, jamono ya bi na nga koo gisee rek dëkk moom yaakaar naa fépp ay métti. dañoo yàgg ay nit bu leen yàlla boole. dëgg la ñu yàgg. wallaay dañuy sàmm seen diggante yàlla moo ñu boole man ak yow. dëgg la yaa ngi dégg. la depuis ñuy xale ba léegi nii man ak yow yàlla moo ñu boole. ndeysaan ndax xëy na nag bind nii am am yu ñoom ñoo ñoo wute. wallaay yàlla mooy bind nii. wallaay mais gën a la góorgóorlu. wa war ñaawloo dara bu soo gën kaa fonk gën rabbi sama sama xarit nga daal yàlla moo ñu boole mën a yow sama xarit nga dëgg la li ma lépp lu ma def si yow rek daf maa war wallaay wallaay ay sant ak gërëm yëpp bu ma ko defati dégg nga guddaloo fan rek waaw gën a la góorgóor nag lim xaalis ba nag moom dafa pàkk ya jaay naa yëpp dëgg la yaa ngi dégg waaye nag dama lay doolee sant bu du dara ah. ndax yow yaa yow yaa yaa yaa laa taxaw na man xam nga nekkuma. yow jamono ja da nga xam nga lépp da ngaa baax di ma sant jamono ba ma fay def xaale. gole yi di ma sonal ci sama tool yi xaale lépp suuf sa waa dëkk bépp riir. nga mën ma koo bàyyee rek ne ma defal lu la neex. bayal nu la neexee. kon nag yow yow man maa la mel njukkal. da baax di ma ci leeral rek waaye bu la neexoon nga toog. di sa bopp noonu rek boo gisee ma wool la nag waaw comme li ma la wax léegi nii moom la waaw comme que yow yaa nekkoon di sa sonn yàlla dogal ma jaay pàkk yëpp moo taxoon ma wool la pour waaw lii nag bëriwul moom wax dëgg yàlla am deux cent mille wala ah da ko da koy jar pour nga préparer si sa <laughs> tabaski même ñeen fukk déedéet ñeen fukk <laughs> non bëriwul bëriwul ah, sama

waaw baax na jërëjëf ku lay xaar yàlla na xaar dinañ ko. non. baax na jërëjëf thank you baay ma saako set na de ñeent fukki kon dama ko yóbbu nii de. jëlal jëlal yaa ko moom. non ko moom yàlla na ku lay xaar yàlla na lew yaa ko moom. dégg naa de barke borom Touba sama man sama sa bi lu ci juddoo muy góor muy jigéen turu yaay borom. <laughs> da ma guddaloo fan. yàlla sa jàmm yaay da nga baax saako set na de fi mu nii kay dox laa mun sax saay tànk crampe est-ce que man est-ce que mën nañ jox ñeent fukki xool ba mana de ceeb ceeb ceeb golo am na almet léegi dëkk bi leer nañ nañ nañ li muy nii daal xamat lay def ndegam yomb ma ay sero yomb ma daal di de léeg-léegi nit def lu baax waaye daanaka man ngaa dem ba mu jur la problème moo ne këyit bu baaxul la de moo ne ñeent fukk de ceeb yàlla bu ma cëb tey daal lépp leer saak teewus ki neex na ba pare xaaral ndegam jamono neexut waaw nag am jamono neexul xaaral ma am na ma def ay waay waay waay pa moo ngay dëgër bopp de <laughs> ay waay waay saa xol sedd na saa xol sedd na lool saa xol sedd na de ay waay waay waay Right, Raggy. saa xol set na. saa yeggee fu ma jaar yoon na. Eh, waaw waaw waaw

ñaar suba ñaar midi ñaar ngon pourquoi loolu non li tax kay pa bi naa ba ñaar suba ñaar ngon mais man na faj bobu metti kër sa kër kërit sa kër kër bay du kër jii lii kër